صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق جنان عن تعبير جزءا من جلال خصوصياته فضلا عن كمالها محمد الرجل الدنيا ووارثها صلى عليه إلهي كلما ذكر ورضي الله عن ختم الولاية وساق السقاية لأهل النيابة ممد رجال الله من قبل كونهم وساقيهم في كل شرب منقع ممد وغير مستمد ومن يخس أميرا بمحمول عليه غتاه ختم أو خاتيام أو خيتم أو ختام مولانا أحمد بن محمد التجاني ورحم الله عن أبا الفيودات زمزم الأرواح كنز الحقيقة كنفها ومرادها نفس البقاء وروحه وحجاب جمع قد تظاهر مفردا زقن لذا وذا لذاك أبو الأبي مولانا شيخ إبراهيم نسى الكولقي alhamdulilah mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ndokkeel mboolem ku bi mu ñu mayee ñu fekkeewaat bés bi tey di màggal guddik Cheikhu Tidiane radiallahu anhu gi nga xam ne ci la jotee maxaama bi nga xam ne mooy maxaama katmiya waaye balaa dara ñu ngi dalal sëñ bi ma alxaaji Muntaxa ñu ngi koy dalal bu baax xam naa dinañ jox eh, Cheikh Moussa Soxna incha allahu mu présenté ko ak délégation bi nga xam ne moom la àndal waaye balaa ñoo def dara rek dañuy ubbi jotaay bi ak alquran insha allahu taala niñ ko xamee ci jotaayu bu askanoo ci Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu xam naa kon dañuy jox Cheikh Mbow insha allahu mu ubbil ñu alquran ji ñu dugg ci programme bi insha allah. a'uuzu billahi minash shaytaani rajim تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون boddiwul kenn nangul na ñëpp seen xaal nit ku nekk la nga nekk bàyyi na la ci du jëw nit du yàqu deru nit du wax ci nit lu bon ndax dañuy toog ak moom kooku tuddal mu ne la kooku ku baax la balaa ngaa wax dara dëgg dëgg loolu jikko ju rafet la ñu ngi koy sant ñu ngi koy ñaanal yàlla di sàkku fu waay toll di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam gannaaw loolu nag ñu ngi wax ci turu ci ndigalam moom ci turu famille Serigne Aaxibu ndax dangeen ko boole ci pare yi fii sax laa ko yëgee waaye ñi ngi wax ci làmmiñ ñi famille ba ne kontaan nañ ñi ngi ñaan mbooti sëriñ bi yàlla na ko yàlla feeñal ci jotaay bi ku bëgg Cheikh Tidiane la ku fiir ci tarixa Tidiane la ku daan sonne wér da laazimam ak war wasifam ànd nañu ak moom waxtu nekk tukki waaye fu ñu ànd ak moom waxtu timis jot fuñ wàccee bu bu waxtu julli jotee buñ demee fuñ mën a wàcc dana wàcc ñi yeesalul njàpp yeesal seen njàpp ñu julli buñ jullee pare éegaat ci oto yi ci oto yi lañuy ñuy wasifaa kon kooku ku ko gis da nga xam ne kon kii taalibe tijaan la ñi ngi ñaan yàlla barkeem wilaayaam yàlla na feeñ fii te itam am nañ yaakaar ndax Cheikh Mamadou ji miy toog mbootam la mbooti sëriñ Aaxibu la lépp lu nekk ci moom sëriñ Aaxibu moo ko def ci moom sëriñ bu moo ko may wérde sëriñ Aaxibu moo ko tarbiya sëriñ Aaxibu moo ko doxal seyru lépp lu mu xam sëriñ Aaxibu moo ko xamal masta simbu dara wala mu dugg ci dara te duur ne sëriñ Aaxibu moo ko wax na ko defal lii du mësul dem fenn fu sëriñ bu yëgut ñun ñii itam xam nañ fi ko sëriñ bu tegoon ci mbëggeel gi mu ko bëgg sëriñ bi ku yomboon a pataaral noppi la waaye bu gisee mamalaaji rek da ngay gis xar xanam bi fecceeku mu sawar loolu daf doon tegtale ne da ko bëggoon moom itam mu bëgg koo def ko sëriñam amul dara lu muy dugg lu muy sëriñ bee koy jox ndigal lum ko digal bu ca nekkee yàlla def ci barke kon moom mbooti sëriñ bi la ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ko tawfiix yàlla wattu ko Seyda yàlla na yàlla fay la ci barke sëriñ bu Ñas bu ko defee ñu gàttal foofu di wax ne thème bi muy waxtaane nag mooy maam Alhaaji Abdoulaye Niass mi nga xam ne moo ñu jural Cheikh Ibrahim ndax wax nañ ne euh, fii thème bi waxtu wu nekk maam Alhaaji la ñuy waxtaane maam Alhaaji nag doy na rek ñu ne moo jur Baay Niass ku jur Baay Niass kooku kenn xamul loo doon kon sëriñ bi allahuma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim di gërëm si sëriñ Mawlana ñu ngi nuyu mbooleem kilifa yi teew ci jotaay bi yépp di ci jiital shérif sati yonoon ci al muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di nuyu al muxaddamul baraka suñ xarit suñ kilifa suñ soppee cheikh abdullah mu cheikh imam xasan Cissé di nuyu al muxaddamul baraka suma xarit sama soppe sama àndandoor ci yàlla xadimu cheikh muhammadul aaqib cheikh ibrahim muy cheikh Moussa Soxna ñu ngi nuyu euh, directeur Mouhamed Seck Mor Seck ñu ngi koy nuyu nuyu Cheikh Aboubacar Thioub nga xam ne jotaay bi moo baaxoo ak mu jot di ko ubbee alxuraan ren suñ mbokk Cheikh Ahmed Tidiane yi mbaw suñu xarit suñ soppe wutu ko fi waaye xam naa ne dana jàng alxuraan ci kanam insha allahu rabbi eh, ndax alxuraan moom heure bu ko jàngee rek baax na ñu ngi koy nuyu di nuyu Cheikh Ahmed Tidiane Mbow di nuyu mboolem zikarkat yi waaye di nuyu Cheikh Abdoulahi Dia di nuyu Cheikh Tidiane Darame di nuyu mboolem soppi yu fi nekk yépp góor ak jigéen mag ak ndaw waaye di jag leen suñu yaay Seyda Mama Amidia ñu ngi koy nuyu di nuyu mboolem ay soppeem ay doomam ay xaritam ay mbokkam nga xam ne ñoom ñëpp bàyyi nañ seen yitte ñëw teewal ko ñoom ñëpp ñu ngi nuyu maa ngi seen yaakaar naa Abdou Abbas ak Tijaan ñu ngi nuyu mboolem soppe yi bi teew ak jigéen mag ak di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu sant yàlla ci bés bi nga xam ne dellusiwaat nañ fii muy bésam ngeneen bésab leer muy bés boo xam ne heure buñ dajee rek dañoo dajee ngir fàttaliku Seydina Cheikh radiallahu taala anhu mu kawe moomu nga xam ne maqaamam fa yàlla kenn xamul ko ku dul yàlla ak yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg giñ ko bëgg nag ak yittewoo gi ñu yittewoo mbiram bëgg ko mu doy ñu muy sëriñ muy Cheikh radiallahu anhu doy ñu walis keneen loolu moo tax ñi ko bëgg heure bu guddi gi jotee nga xam ne nettali nañ ne si la heure ci maqaamam bu kawe boobu deneen dajee ngir màggal guddi googu guddi gu màgg googu waaye tamit heure bu ñu fi dajee rek boroom xam-xam bu mag boobu muy oustaz Aboubacar Ba tijaan yi xam ne ñu ngi koy xaar dana ci wax wax yu yoo xam ne dëgg-dëgg ku fi ñëw danga fi xam loo xamul toon danga fi dégg loo déggutoon ndax boroom xam-xam la te ku yàlla may la jagleel ci Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala waaye tamit bu dajee dinañ ci fàttaliku maam alxaaji Abdullahi mi nga xam ne xalifa la ci xalifaay Cheikhu Tidiane yi te loolu deneen ci ñëw xalifa la ci xalifaay Cheikhu Tidiane nekk nit ku nekkoon góor bu mag bokkoon ci ñi nga xam ne dañ koy tuddee yaaqubu tariq moom lañ koy tuddee Maam Alxaaji Abdoulaye ngir lan yàlla may gi ko may ci tariqa bi ak ay doomam it niñ mel ci tariqa bi maam alxaaji abdullahi moom nag buñ doon waxtaan ci moom te yàgg nañoo waxtaan ci moom at mu jot ci moom la ñuy waxtaan def ci moom waxtaan bi mama loolu la tànn at mu jot rek ñu waxtaanee maam alxaaji abdullahi du jeex waxtaanoon nañ juddoom waxtaan ay baayam ay maamam fi mu jógee ak lim def yooyu yëpp waxtaan nañ ko kon buñ ciy jaaraat at mu jot rek dañ koy mëmbëstal rek mu gaaw mu dem ngir lan barkeelu ci guddi gi mamal xaaj abdullahi moomu góor gu màgg la woon góoru royteef la woon ku amoon daraja la fa yàlla koo xam ne ku rawoon la ay maasam ci jamonoom mu nekk koo xam ne bokkoon na ci xalifaay cheikhu tijaani radiallahu anhu sidi muhammad moo ko jur kooku Mademba moo ko jur kooku Bakari moo ko jur kooku Lamine moo ko jur moom lay bàyyi di wax ne mi ne Lamine moomu mooy ki nga xam ne mooy ki njëkk a gongeekoo ci néeg bi nekk di sëriñ mu ne néeg bi seen nekk sëriñ mi ngi gongeekoo ci Lamine nga xam ne mokkaloon na alxuraan nga xam ne bàyyi wax na ne kaana aaliman wa batalan shujaan koo xam ne alim la woon jàmbaar la woon waaye timit mooy ki njëkk a gongeekoo ci néeg bi ngir jëriñi ci xam-xamam ñooñu ñooy maami alxaaji abdullahi ak baayam baay wax na ne fa waalidi alxaaji abdullahi murshidu li gaafilin walaayi waaliduhu muhammadu sarriyu zul kashfi zul kashfi wal aqli zaki lwali waalidu daa madamba man qashaa saytun lahu fi lfadli ثم ادعى آباء ذاك الأمراء الصيد وليس ذاك عندنا مقصود باين واجر الحاج عبد الله Euh, sama waajur alxaaji abdullahi mooy ki nga xam ne mooy jubal képp koo xam ne ku sàggan la tey fooye yàlla muy alxaaji abdullahi mooy kii jubal képp ku sàgganee yàlla tey fooye yàlla waajuram mooy muhammad sidi muhammad nga xam ne moo ko jur moo ko jàngal alxuraan seydi mawlaay cheikh muhammadul netti nettali na ma ne ma maawal xaaji baayam Sidi Muhammad moo ko jàngal alxuraan te bi mu koy tàmbali di jàngal alxuraan jàngal na ko lu yàgg ñi soog a am kaamil ñi soog a am kaamil waaye ci mokkalam rek la ko doon jàngalee ba mu mokkal alxuraan kon loolu maye gu maye gu rëy la ci cër ni ko yàlla maye ci alxuraan moom Sidi Muhammad di bàyyi maam alxaaji abdullahi kooku ma demba moo ko jur kooku bëkkëri kooku lamin moo ko jur waaliduhu bakrun wa qad alamun najlul amini najlul amini alxarmi wa xakamu kooku lamin moo ko jur kooku ma demb moo ko jur kooku bëkkëri moo ko jur kooku lamin moo ko jur bàyyi ne waajuri alxaaji abdullahi ñoom ñëpp ay buur lañ ay sang lañ waaye du ne loolu lañ jubluñu dañuy wax rek pour li maam alxaaji abdullahi radiallahu anhu comme juddoo nag ci baayam seydi muhammad di baayam seydatu xadijatu di yaayam mu judd judd bu rafet yàlla may ko bi mu amee juróom-ñetti at ci la ko baayam dugal alquran ba mu demee ba am fukki at juróom ci la mokkal alquranam ju yéeme jooju mokkal alquran ci baayam baayam moo ko jàngal mokkal baay mi ngi nettali benn xissa ñun ñëpp dañ koy déglu ci band mu ne suma baay baayam mësta nangu mu tàqalikoo moom benn laxza mësu koo nangu xad uluma عند والده لأنه أبا فراق ne mu ne suma baay alxaaji abdullahi baayam moo ko jàngal lépp lu mu xam baayam dafa bañoon tàqalikoo moom alxaaji abdullahi waaye benn noor ci noor yi wax na ko ne ko mu ñaan baayam pour mu dem nooraani ji mu may ko mu dem fële ca ku ñu wax seydi Euh, Muxtaar Faa Njaay demoon foofu di fa jàng bàyyi mu ne bim demee foofu bim mu fëgg ñu ne kan la mu ne Abdullahi sëriñ ba ne ko ne bu dugg bu alxaaji Abdullahi dugg fekk àlliwe yooyu nekkut nekk foofu bindut ko ba mu jeex bu bindee àlliwe yépp nag bu paree mu soog a mu bind àlliwe yépp daara ji yëpp mu bindal leen keroog seen bind maam alxaaji abdoulaye moo leen ko bindal ñu leen ko bindalee sëriñ ba woo ko mu ñëw bi mu ñëwee mu dalal ko laajte ne yi nga xam ne alxaaji abdoulaye bindoon na ko ñu indi ko bi mu ñëwee maam alxaaji sëriñ ba xool ko bi mu ko xoolee daldi yëngal bopp bi ne abdoulahi de yëgoon naa ne mokkal nga alxuraan waaye alquran yi yaaram ji tegu mu woon ne moom nga mokkal kon loolu dafay seede rek ne ku mokkaloon alquran la mokkal ko mën koo béqi xam alquran xam ay mbooleem atteem bàyyi continuer xissa ba la ca wax waaye lii rek laa ci soxla woon kon mu jëlee xam-xam ci baayam alxaaji abdullahi moom moo ko Euh, ci baayam Sidi Muhammad moo ko jàngal alxuraan moo ko jàngal xam-xam moo ko jàngal xam-xam lu dul ba demee ci Maxtaar Faa dem foofu déggee woon nafa fa naxwu mu ngay dégg bàyyi ne wa samia naxwa min almuxtaari wa da fi asrihi min alaxyaari wa nataxa almuxtaaru bi taqaddumi tilmisihi wa lada taallumi kadaba waftara ala allahi man zakaru cheikhan li abdillahi min baadi zeyni mutlaqan qad sabaqa jamiahum min saabiqin wa man laxiq bàyyi mu ne radiallahu anhu mu ne bi mu demee foofu déggee na gannaaw bi mu jàppee ci baayam xam-xam déggee na xam-xam wa samia naxwa min almuxtaari la déggee na naxwu ci Maxtaar Fa Njaay déggee na ci moom naxwu ca jamono ba muy jàng man li ma déggee foofu mooy baayam li baay wax ne suma baay baayam rek moo ko jàngal kon demoon na fa pour dégg naxwu rek pour déggee foofu naxwu dégg na ci moom naxwu waaye duwul ne baayam ma euh, euh, euh, moom moo ko waaye baayam daal gàtt gàtt bi baayam man moo ko jàngal lépp ndax loolu la baay wax suma baay baayam rek moo ko jàngal mësta dem ci kenn jàng déggee na ci moom mu dem ndax nooraan noor boobu la ko ñaan na ko ma dem mu bàyyi ko mu dem mu ne ba mu demee nag wa samia nahwa min al muxtaari wada fi asrihi min al axyaari wa nataxa al muxtaaru bi taqaddumi tilmidihi wada lada taallumi baay mi déggee ne naxwu ci muxtaar ci jamono jam fay jàng mu bokk ci tànnee mu ne Seydi Maxtaar Fa Njaay tudd na jiitu gim jiitu taalibe yi moom maam alxaaji Abdullahi ba muy jàng bàyyi nag teg ci ne kadaba waftara ala llahi man dakaru cheikhan li abdillahi min baadi zeyni mutlaqan qad sabaqa jamiahum min saabiqin aw man laxiq bàyyi ne fenn duud na waral yàlla képp koo xam ne yaa ngi tuddal alxaaji Abdullahi sëriñ lu dul ñaar ñii ku dul ñaar ñii mooy baayam Sidi Mouhammad ak Seydi Muxtaar Fanjaay ku dul ñaar ñii rek jàngaluñ maam alxaaji dara kon képp kuy tuddal ne maam alxaaji Abdoulaye diw moo ko jàngal walla diw jàngal nga ko bàyyi ne ne kooku di koy wax ak ku koy nettali yépp fen nañ waxuñ dëgg kadaba waftara alallahi ajal moom la bàyyi maam alxaaji Abdoulaye kenn jàngalu ko li ëpp ci lim jàng lépp lépp lépp lépp baayam moo ko jàngal alquran ba mokkal baayam moo ko jàngal xam-xam utiwul ci kenn dara lim lim am bi mu ko soxlaa dafa génn dem fa mu nekk mu jëli ko fa indi ko fii ci réew mi kon moom amut fii ci kenn ci senegal min xaafin ila xaaf koo xam ne defal nga maam alxaaji Abdoulaye bàyyi Cheikh Ibrahima Niass dafal nga ko dara defaloo ko dara tous dafa lu toll ni bën bën a puso dafa loo ko maam alxaaji abdoulaye lu dut lu dut seydi eh, sidi mouhamad moo ko jàngal xamal ko lépp ak seydi maxtaar fandiaay ba mu fa demee benn noor mu déggee ci moom naxwu wa samia naxwa min al muxtaar yi bàyyi nag mi ngi gannaaw ñaari ñi rek ku li ku tuddal alxaaji abdoulaye sëriñ rek fen nga fen nga waaw waxoo dëgg kon maam alxaaji abdoulaye moomu nga xam ne Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu daf ñuy tënkal dundam ci ñaari bayteem na ridallahi an cheikhi wa asliya wa murshidi wa qad aasha yahdina ila diini naasira bi gadwin wa taalimin wa xajjin wa hijratin wa aasha shakuran wa huwa qad aasha saabira bàyyi moo ñu tënkal dundu maam alxaaji abdoulaye ci ñaari bayt ngir man gi mën am gi mu am xam-xam yàlla na yàlla gërëm sama sëriñ moom alxaaji abdoulaye mooy sëriñam ridallahi an cheikhi mooy sëriñam ndax feneen wax ne jazallahu walidi wa muallimi la daa xadaratil manaani kulla jazaayi yàlla na yàlla fay suma waajur ki ma jàngal moom baayam rek moo ko jàngal moom itam baayam rek moo ko jàngal moom alxam moom mës ta dem fenn sax di fa déglu dara waaw moom moom mës dem fenn di fa jéem a déglu dara wala di laaj kenn lenn ndax damay wax ne Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu baax na baax goo xam ne dënnam yaatu na yaatu goo xam ne te baay xañaan bu fekkoon ne keneen jàngal na ko ci lim xam rek dana wax dana bind ne jiw sama jàng def na ci dara ndax bàyyi xañaanul bàyyi soxol su fekkee Euh, euh, benn jaamu yàlla bu xeebu mooy wax ne diw ak diw jàngal na ma ca ñaareel kala jàngal noonu yow yow yaa ko raw sax waaye da koy tudd kon wax na su fekkee diw moom mën naa wax loolu waxuma la ak Cheikh Ibrahima diw li tax mu wax loolu daf koy wax ngir mbaaxam daf koy wax ngir suufee leen boppam daf koy wax ngir ragal yàlla te bàyyi man jàpp naa ne kenn gënu koo ragal yàlla kenn gënu koo baax kenn gënu koo rafet jikko kenn gënu koo yaatu dënn te xañaanu bàyyi xañaanu moo tax kenn jàngulu ko moo tax jazallahu walidi wa muallimi lada xadarati lmanaani kulla jazaayi yal yàlla fay suma waajur ki ma jàngal yal na ko yàlla fay yal na yàlla fay ki ma jàngal muy alxaaji abdoulaye mooy sëriñam moo ko jàngal lépp moo tax journaliste ba ko laajee Mansour Ndiaye bi mu waxee mu wax ca seen dajee ba ca mootamar ca ca ca makka boroom xam-xam yëpp dajee bàyyi wax ba pare benn borom xam-xam Égypte jug na ko waa yow noo def ba jàngee Égypte ta man xaw ma la bàyyi na ko man mosumaa gis azhar ak suma bët ah, waaw ah. waaw mu noo def ba jàngee la eh, ki azhar te xaw ma la bàyyi na ko man mosumaa gis azhar ak suma bët mosuma kaa gis mu ne ko déedéet yow ku la jàngal mu ne ko man sama bàyyi moo ma jàngal sama bàyyi bàyyi ma ko jàngal bàyyi bàyyi ma ko jàngal waaw ah, bàyyi tontu ko foofu bu am solo mu ne ko yéen da ngeen a jël réer def ko muy xam-xam léer ak yonent bi daj na àddina bi xap ba bu leen yaakaar ne ku jàngewut azhar rek amul xam-xam man maa ji teg ne moom jàngewut azhar te moo raw ñëpp waa azhar ñëpp moo leen jiite moo tax bi mu demee foofu ñu ne ko kaay nga jiite yi ndax moo leen raw moo tax waaw kenn mësta dem azhar jiite fa mayuñ ko kenn sax mayuñ ko kenn fooree ko amee woo ko askan wu rafet bàyyi du askanam moo ko yéegal fa du askan du askan du dara waaye xam-xamam ag raw gim raw moo tax dafa raw ni ñi ci xam-xami zahir bi waxuma laa xam-xam baatin masta jël kër baayam taraw ci lislaam benn sëriñ mun see wax na dem na daram su kajaan amutoon loolu moo de ak mbaa su fekkee ngay xeem loolu doy na xarbaax am yore ngi taas na dajal bu بن معظم هدي ويداو أما أمي هرطوك لسم بدارام رجور أي مسلا بولكم مقامام سرونجن المغلا بولي جاي مول يا يقب يا قوس يا سيد رجال دقلا موي موي سيدي موي غوصو موي سيدي رجال mooy xutbu mooy xawsu mooy Seydi Rijal man maa ko wax waaw Cheikh Ibrahima Niass ma ne moo tax mu dem ba azhar jiite leen juma ak juma jiite leen taxaw ci kaw minbar bi jiite te loolu bu ko bàyyi nettali doon sax am na ñoo xam ne mën nañ koo ñàkk gëm waaw waaye moom moo ko nettali wax ko ci band ñëpp di ko dégg imaam bi ba mu ñëwee ilimaan ji ba mu ñëwee ne ma yow yaa jiite tey ma tekk ay tekk ngoog baraam joom nee na ndax xam ngeen tekk ak bàyyi moom xam na ko ndax moo bàyyi ñoo nekk waaye ñun xamuñ ko ñun xamuñ tekk googu waaye tekk googu mooy toog di xaar ndigal ci pay bi waaw ndigal la doon xaar mu ju koo ci pay bi bu téyee ndigal li rek yéeg ci kaw waaw moo tax ba mu téyee ndigal li rek ba yéeg ci kaw rek ndax lépp lu muy def rek ndigal la koy defee Baye Niass radiyallahu lépp lu muy def ndigal la koy defee Omar Gade ne mësta ju kër baayam te raw ci lislaam lislaam la moo raw ci lislaam képp kuy óyoo lislaam rek Cheikh Ibrahima Niass moo la raw doomi alxaaji waaw képp kuy uyoo lislaam nga nekk ci lislaam gëm yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam doomi alxaaji abdullah ji moo la raw mooy cheikh ibrahima ñas radiallahu anhu mu neex la mu di la nga xam ko nga ñàkk koo xam nga gëm ko nga ñàkk koo gëm bàyyi moo la raw waaw loolu moom la yàlla na Sénégal gi mën nañoo toog buuxante feeg moom waaye nañ génn ci biti seet nañ génn ci biti senegal moom mën nañ ci fee buuxante ak moom amul problème waaye waaye waaye bëree na ba am fi lim fi am téye ko moom moom baay waaw waaye ci biti nañ fa dem ñu xool waaw buñ demee ñu xam ne du moromi kenn du moromi kenn waa Sénégal yi jaaxaluñ ko moo tax Sénégal jaaxaluñ ko moo moom dafa am ñu ko jaaxaloon fa ñu la jëm ña gën a dëgër bopp sénégalais yi foofu la dem téye leen bi mu leen téye ne leen rikk téye leen keneen mënu koo jaaxal moo tax ku mu bëgg jël rek daf lay jël loolu mënu ci dara doomi alxaaji Abdoulaye ji laa Cheikh Ibrahim Niass waaw moo tax ridallahi an cheikhi loolu rek doy na alxaaji Abdoulaye maam alxaaji Abdoulaye jur gim jur baay doy na ko ndam moo tax Cheikh Ibrahima Niass aadamu xujja lilxaaji inna alxaaja kaana aziman Cheikh Ibrahima Niass mooy lay wi gën a màgg ñeel alxaaji Abdoulaye mooy lay gën a màgg lay wi gën a màgg rek mooy Cheikh Ibrahima Niass Baay Niass kan moo ko jur kan mooy bàyyam alxaaji abdoulaye ah. maam alxaaji abdoulaye bu amutoon xam-xam sax cheikh ibrahima ñes gim jur rek doy na ko cheikh ibrahima ñes gim jur rek doy na ko hmm. ibnu alxaaji gis ko ci bindam hmm. rek ko mën a jur nag eh hmm. foofu la fayam abdoulaye rek moo mën a jur bàyyi ku moo mën a jur maam alxaaji abdoulaye maam alxaaji abdoulaye ah bàyyi ñu ko soxla woon bëri na de ku nekk laa bëggoon nga bàyyi nekk sa doom ku nekk bëggoon na bàyyi nekk sa doom man maa ko wax ku ne bëggoon na jur bàyyi Cheikh Ibrahima Niass ku ne bëggoon na koo jur zaaka haajun wa zaaka abdul ilaahi xawsu asri qad xaqa fi sanaa radiyallahu anhu zaaka haajun wa zaaka الإله غوث عصري قد حاق فيه سماء أكبر وحكو بربنا zaaka zaaka xaajum amina kooku mooy alxaaji abdullahi wa zaaka abdullahi boo ko xamul kooku mooy abdullahi jaamam yàlla bi aw sosri kooku mooy ki xettili jamonoom alxaqa fi sana kooku yell na ci moom yee na ci moom ñu koy tàgg ذاك الهجر وذكاء الإله خمس الطريق الحق فيه سناء ذاك شيخي oh damal kooku mooy sama bàyyi nee na zaaka cheikh yi kooku mooy sama sëriñ wa zaaka faxri wa xibbi kooku mooy sama puukare mooy sama soppe moom laa bëgg zaaka min amraadi lqulubi shifaa kooku mooy kii saafara feebari xol yi muy alxaaji abdullahi waaye ne nag maa ngi tawasulu ci sama imam bi sama njiit ridallahi an cheikhi bàyyi na yàlla na yàlla gërëm sama sëriñ nekk sëriñ yi bàyyi yombul nag moom timit ñaari sëriñ rek la am de bàyyi tamit ñaari sëriñ rek la am waaw ñaar rek la tuddal sëriñ moom ñaari gannaaw moom alxaaji Abdoulaye Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu mooy sëriñ waaw mu ne toog naa diir bu yàgg di xelaat fan la Cheikh Tidiane mën a jaar ba gën ma ba mën a nekk sama sëriñ bi mu paree moo yàgg pare bi moo yàgg moo tax dafa départ rek mag dafa départ rek ma waaw. Ah. mahaqat zaatu shayqi wa maatu awsa kunnahu awsa bi fa kulli adim xoolal loolu rek toog naa diir bu yàgg di xalaat foofu du ma fa ñëwagum li mu wax ne mahaqat zaatu shayqi zaati jëmmi Cheikh Tidiane effacé na sama jëm. waaye toog naa diir bu yàgg baay dafay fee yàgg de gars yi bàyyi dafay fee yàgg de ñun liñ jàpp mooy lii gars yi mën a dégg rek ne 1900 la judd waaye bàyyi daf fee yàgg de yàgg de toog naa diir bu yàgg duur 1900 ba mu juddoo ba fi mu toll déedéet diir bu yàgg la waa diir bu yàgg. Hmm. di xalaat fan la jaan yi mën a jaar ba gën ma ba mën a nekk sama sëriñ ku em ni Cheikh Tidiane ak fi mu toll fi Cheikh Tidiane yi toll <laughs> mu ne fan la Cheikh jaan yi mën a jaar fan la mën a jaar xam nga jaaruwaay Cheikh Tidiane jaare ba ko <laughs> ma ngay topp jaaruwaay jaaruwaay fan la Cheikh Tidiane yi mën a jaar ba gën ma ba mën a nekk sama sëriñ ndaxte fi mu jaar moo tax ku timte fii xadaraatil xaq yi laysa siwa almuxtaari yadrika laa insun wala malaku قدمت في حضرات الحق ليس سوى المطار يضيق لا انس ولا ملك لكن تجليت للاجوار بها اذ انت انت ومنك الفلك والفلك الله daf koo xam moo tax waaw waqad xustu fi baxri lxaybi ñu ngi tatagal délégation oustaz Ahmed Ba ci njiital Seydina Ali ak ñi mu ànd ak yëpp kon bàyyi ne radiallahu anhu jazallahu an cheikh ma ne ñaar rek la tuddee sëriñ alxaaji abdullahi ak cheikh ahmad tidiane fan la cheikh tidiane yi mën a jaar ba gën ma ba ma a nekk sama sëriñ waaye mi ne gannaaw gi la ma ko yàlla xamal gannaaw gi la ma ko yàlla xamal bi mu doonee sama waasita ci li ma ne wasaatatu boobu la ma sutee ba gën ma ba mën a nekk sama sëriñ mu teg ci lu neex mi ne xam nga ma majzuub yàlla dana koy jay léeg léeg léegi ci maqaam mu ne te dëgg rek la wax ne <laughs> mi ne ku nekk ci xaal boo xam ne gisoo dara lu dul yàlla yàlla ne limaam yëpp yow laa ko may kooku dëgg dëgg <laughs> Baye bëggoon maam Alxaaji Abdoulaye dafa bëggoon maam Alxaaji Abdoulaye démb rek maa ngi jële ci Cheikh Ibrahim Cissé Jalaaluddin mu Cheikh Mouhamadul Mahi Seyda Aline mu ne maam xalifa dafa bëri lim daan wax bu daan oo oh, Cheikh Ibrahima Niass rek Ibra la ko daan wax Ibra Ibra bi nag mën naa koo netti li tax mu mën koo netti li dana ñëw ci kanam mu ne ko Ibra fu mu gisaan Baye rek Ibra la koy wax. benn bés bàyyi nuyu si ko mu ne ko Ibra na nga def fekk benn naar gànnaar ma nga fa naar bi na ko xalifa yéen ñun ñëpp Cheikh Ibrahim la ñu wax yow ngay wax Ibra Ibra Ibra rek waxal Cheikh Ibrahim rek nga bàyyi Ibra mu ne maam xalifa ne ko laaj ko moom ma koy ooyee Ibra moo gën mu ooyee ko beneen tur ndax bu ma ko ooyee Ibra xelam dafay dem ci baayam alxaaji Abdoulahi waaw bu ma ko ooyee Ibra xelam dafay dem ci baayam Alxaaji Abdoulaye nga déggee ci ne Alxaaji Abdoulaye Ibra rek la ko daan ooyee te baay dafa bëgg baayam Alxaaji Abdoulaye daf ko bëgg daf ko bëgg kon loolu moo tax ma nettali xissa bi di tax ma ko koy ooyee kon loo ci déggee maam Khalifa mënoon na ko ooyee Cheikh Ibrahim mënoon na ko ooyee Cheikhul mënoon na ko ooyee tur yëpp te de du ko déranger du ko yàqal dara waaye nag daf koy ooyee tur woo xam ne bu ko ko ooyee dana ko neex. ndax da koy fàttali kam bëgg muy alxaaji abdoulaye bàyyi ba muy wax si ci Seydina Ousmane ci benn gàmm dafay wax ba ci yàgg mi ne man abu abdullahi laa koy ooyee ndax tur woowu moo ko gën a neex abdullahi doomi doomi roqiyatu la woon wala umu kalzom waaye matutoon mu dafa judd rek génn àddina Seydina Ousmane tuddee ko abdullahi bàyyi nee na man bu ma koy oo tur bu ko gën a neex laa koy ooyee mooy abu abdullahi ndax abdullahi mi nga xam ne sëti yonent bi la gonawante yonent boobu dala ko neex moo tax man abu abdullahi laa koy ooyee bàyyi wax na ko ci gàmm mi ne tur bu ko gën a laa koy ooyee mooy abu abdullahi boobu laa soog a xam ne sax ne Seydina Ousmane turam yi bokk na ci liñ cay dàkkantele mooy abu abdullahi ndax dafa amoon doom mu tuddee ko abdullahi waaye doom ji matut moo tax maam xalifa nag gis ne Cheikh Ibrahima bu ma ko waxee Ibra Ibra googu dana ko fàttalil baayam alxaaji Abdoulaye daf te da wax ne qad ahbabtuhu daf ne ni mu ko waxee bëgg naa alxaaji Abdoulaye ndax fokk naa ko mu békk bokk ci góor yi waaw ahbabtuhu xaw ma ni mu ko waxee ba ne hmm? ba mu wax ne wajadtuhu min rijaali waaw radiyallahu anhu maa ahbabtuhu li anni walidi maa ahbabtuhu li anni walidi li annahu walidi ahbabtuhu li anni wajadtuhu min rijaali bàyyi loolu la wax maa ahbabtuhu li annahu walidi bëgguma ko ngir lim nekk suma baay moo tax Cheikh Mahi Cissé bu koy nekk yàlla na yàlla guddal fanam mu ne loolu su fekkee loolu la ku nekk mën naa dem bëgg baayam ndax ku nekk am nga place pour bëgg sa baay waaye bëgguma ko ngir li mu nekk suma baay waaye dama koo bëgg ngir dama koo fekk mu bokk ci góor ñi baay kan la ma ne baay kan la dama fekk mu bokk ci góor ñi bàyyi mu dem ba àgg ci góor ñi dama koo fekk ci ko fekkul ko feneen de fekkul ko ci grand place yi de fekkul ko feneen daf koo fekk mu bokk ci góor ñi góor ñi nag duun ñu bari ñu néew lañ arijaalu bi rijaali arijaalu billah am na góor ñoo xam ne góor rek lañ takk tubéy rek waaye am na góor ñoo xam ne ci yàlla lañ moo tax yow jub xool ko ba ci yàgg na ko góor bari bokkul waaw ah, ah. waaw góor bëri bokkul baraamoo di seen maas yow ne ni ngi duñ ca féexam ah. waaw waaw waaw xool na ko ba ci yàgg na ko góor bëri bokkul. <laughs> baraam lu mankañ góor bëri bokkul baraam du seen maam fam leen kawee du leen faasi di baama ki li mankañ góor bëri bokkul baraam du seen maas fam leen kawee du leen faasi di baama ki li mankañ góor bëri bokkul baraama doo maas. Oh, ni ngi duñ ci fi ay Cheikh kon kooku la alxaaji Abdoulaye Diouf di daal bàyyi ne mu tënkal ñi dundam ci ci ci satara bayti bi bi xare na wa taalimin jàngale na moo jàngal ñu jihaad nag bëriwut waaye maam alxaaji Abdoulaye moom jihaad na moom waaw wa jàngale na ku mënoon jàngale la xëy naa mos nañ koo indil benn téere ibnu buuna dañ koo indilee mos ta am ci daal subi dañ ko ko indilee rek na ko bii dañ ko bëgg a jàng mamal xaaji abdoulaye xool téere bi dañ ko boobu la ko soo ko gis bees maa ngi jële wax ji ci ahmad mu seydi ahmad mu alaaji babacar mu maam xalifa mu mamal xaaji abdoulaye mu ne ñu ko indilee téere bi rek maam alaaji liir ndax boobu lay téere bi di soog a ñëw ci kër ga di agsi foofu ndax téere yi dafa jëmoon téere léegi la yomb rek waaye jëfe woon na bi ñu ko indee ama laa ñu xool ba ci yàgg ne xaaral daal di jug rek dugg ci ëttu wàllam bi doomam yi ñu ngi koy ñu ngi koy wax ñu ne ay dafa dem rek ci waayam bi mu jàngale te ko mu xam waaw Cheikh Tidiane ñëwee la mu tijji téere bi rek commencé di ko jàngale kenn jàngalu jàngalekat bu mag la woon bàyyi ne wa taalimin quran jàngale la jàngal na ñu bëri moo tax bàyyi feneen mi ngi rabba wa kammala wa baana mufrada fi asrihi bi wasfihi tafarrada man xaasa walidan lahu bi walidi ayna furuun ka furuuci walidi qad qultu za tahaddusan bi nicmatin wa nicmatullahi lilqawmi niqmatun man kal xalifati alladi taallama minhu minhu qad awa qad hawa taqadduma ay yunajjuhu lkabiru bahra alilmi wa faaqa fi sidri kulla alqawmi min radda an alshuyuqi ala alfuxuli wa sayara alaalima kaljahuli lahu tawalifu lahu lahu ashcaaru raaiqatu lana biha iftixaaru wa man ka sinwi muhammadu alladi qad faaqa fi lulumi kulle jihbisi zeyna almajalisi fata alfityaani bal innahu mubarridu alaqraani wa man yusamma cheikha yusamma cheikh ani omara fi fi lfiqi wannahwi sagira bahara wa man kabakar fi ittisaa'i almaarifa dem bam jeex dem dem dem dem ba ci man ka abi bakrin bakar jalla wa man ka misli ibrahima min ahli zaman ñooñu ñëpp moom alxaaji abdullahi bàyyi ne euh, jàngale na moom alxaaji yare na matale na euh, rabba wa kammala euh, moom moom moom moom alxaaji abdullahi bàyyi ne yare na matale na feeñ na nekk ku wéet ci ñooñ jamonoom bàyyi na nag man xaasa waalidan lahu bi waalidi ay na furoon ka furooi waalidi ana kuy tëkkale ay doomam ci samay doomi baay kan mooy tëkkale ay doomam ci samay doomi baay ñi mel ni sama baay ñim jur ku leen mën a tëkkale maam alxaaji abdoulaye ñu jur ñëpp ay kàngam la dégg naa ci papa as alxaaji ci benn bandam mi ne toog naag bàyyi ca makka ca kaaba ga ñu ngi jàkkaarloo kaaba gi mu ne bàyyi ngi jàngaar xuraan mu ne mu toog ci yàgg bàyyi na ko alxaaji abdoulaye yëg na ne ñetti xool yi jaamu yàlla la am na ñetti xool yoo xam ne yàlla bind na ko boo koy xool jaamu yàlla la mu ne ko bi ci njëkk mooy xool jëm ci kaaba gi loolu jaamu yàlla la xool di ko jàng loolu yàlla la xool jëm ci sa baay loolu jaamu yàlla la alaaji Abdoulaye mi ne ma déggee si ne man mu ne ko man de mi ne ko maa ngi nii jàkkaarloo kaaba gi maa ngi nii di jàngaar xuraan maa ngi jàkkaarloo sama baay man ñett yëpp am naa ko mu bàyyi di ko waxtaanal ci maam alxaaji di ko ci waxtaanal ba ci yàgg ba mu laaj ko mu ne bàyyi tooba ah sama baay doomam koo jàppoon rek mën na ilimaan koo jàpp ci sama doom yi bàyyi rek mën na koo jàpp koo gëm mu jàpp ko rek mën na ilimaan kon kooku rabba wa kammala wa baana mufrada hmm. ñim yar ñëpp a baax ñim yar ñëpp baax moo tax bàyyi na nekk qad qultu za tahaddusan bi ni'matin wa ni'matullahi lil qawmi niqmatun mu ne lii nag dama koy wax waxuma ko ngir puukare ne ana kan moo jur comme li sama baay jur kan moo am doom yi sama baay am ana kan moo ko am bàyyi na lii nag dama koy wax ngir sant yàlla ndax wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis dama koy wax ngir sant yàlla waaye waxuma ko ngir dara te nit ku nekk nag dagan na mu sant yàlla bu ko yàlla mayee xéewal mu ne xéewal yàlla xéewal la waaye am na ñoo xam ne xéewal yàlla ñoom mbugal la ci ñoom mu ne ana kan moo ci mel ni doomam ji xalifa maam xalifa kan moo ci mel ni maam xalifa kan moo mel ni ci doomi maam alxaaji abdullahi maam xalifa ci jàngam ak am xam-xam ba muy tontu ibnu maaya ba dafa commencé rek na qaala na qaala al ubaydul kawlaxi muhammadu salilu abdillahi wa huwa yahmadu man xassahu bi waadii burhaani min bayni kulli kulli biidi wa suudaani loolu la maam xalifa wax ki wax lii jaam jaam mooy jaamu Kaolack ubay ubaydul Kaolack pour ibnu maaya ba xam <laughs> mouhamadou salilu abdillahi doomi abdullahi la doomi alxaaji abdullahi la alxaaji abdullahi góor la te wa huwa yuhmadu wa huwa yahmadu man xassahu bi waadihil burhaani mooy ki nga xam ne yàlla jagleel na ko mu am ay lay yu leer waaw ah, min bayni kulli biidi wa suwadaani waaw ci mboolem ñu weex ñeen ñu ñuul yàlla jagleel na ko maam xalifa moomu nga xam ne maam xali maam maam maam alxaaji abdullahi moo ko jàngal muy téere boobu murxaafatil qutaay nga xam ne mim ko sammaytuha bi murxaaf bi murxaafatil qutaay ilabni maa yaaba aqi aqi tanattu'i waaw waaw mu askan ko mu jëm ci ibnu maayaaba tuddee ko jaasi juy dagg jaasi ju ñaw juy dagg ibnu maayaaba ba téere bi àggee ci moom rek moom ci la pare ci àddina moom ba ja bu ko jaasi ji fekkee ahmadullah dégg mu ne eh, Cheikh Omar moom moo tuddee turam bi rimaa mi ne bi ñu defee jawa mi ne bi ñu defee jawaahiril maani Cheikh Tidiane tuddee ñu tuddee téere Cheikh jawaahiril maani wurus wurusi mbell mi ne Cheikh dafa dem taalif rimaax mooy guntoo pour ñëw pour aaree ko ko maam Khalifa taxaw fële moom ci ma taalif tée jaasi ne ñaari téere yi moom ku ko laal ñu soxla <laughs> ñaari téere yi ñu seq urus wi ku ko laal bëgg koo sàcc rek ñu piir moo tax lu gars yi weddi weddi jawaayil maani di ci wax nangam du ci wax tijaan yi duñ leen déggu ñun bëgg nañ Cheikh Tidiane gëm nañ ko lépp ñu wax ci tariqa bi nag gëm nañ ko dëggal nañ ko nangu nañ ko xam nañ ne tijaan bu gëm Cheikh Tidiane duñ ko xisaab duñ ko mbugal pencam yàlla loolu Cheikh Tidiane moo ko wax jeex na kon loolu laa gëm jeex na tariqun biha tuxfal jaraayim kullaha wa waalijuha lil illiyina muwallaju tariqa la boo xam dafay kaafara mbooleem bàkkaar ku ci dugg rek yaa ngi àjjana illiyin loolu Baay wax kon ñin te tiijaan yi duñ fekkee xisaab duñ dugg safara loolu Cheikh Tidiane moo ko wax ci ñu ko nettali ci la bokk ci tey jii ci jotaay tey bii ci ñu ko nettali ci la bokk waaw waaw kon ñaata minute mu amee 45 rek maa kon kooku maam xalifa moom nga xam ne ku yéeme la maam alxaaji abdullahi moo ko jàngal jàngal ko mu xam lépp lu mu xam maam alxaaji maam alxaaji Abdoulaye moo ko ko jàngal mu raw ñu weex ñi ak ñu ñuul ñi am xam-xam bëggoon Cheikhu Tidiane radiyallahu anhu dundam yépp mu def ko ci tagg Cheikhu Tidiane radiyallahu anhu ci xasidaam boobu miftahul fathi eh, wal wusuli ila hadrati cheikhina ibnu rasuli mi ngi fay wax ne daayil falaahi ila tijaani daani wal xiyaasu عازلي دعاني فيه السعادة والولاية والتقى بضمان طه المصطفى العدناني إن رمت رضوان الإله وقربه خذ ورد أحمد شيخنا التجاني mu dem ba ci yàgg naan laytuhu sawtan ratiban axizan wirda tijaani an ilhumaami amaani bahru shariati walhaqiqati wannada muti lhidayati muqidu lwasnaani wa tabibi أدواء القلوب مع الجسور خلاصة الكبراء والأعيان هام طريق طريقة شيخنا ورجالها عبد الإله خليفة تجاني رتب الولاية حاذها بالشهادة الكبراء والأعيان من إخوان لولا ما خليفة أخمنا ما ngay oote waa ma nga mi ne maa ngi oote mi ne bàyyi leen ma yéen ñi may woo man ci Cheikh Tidiane rek laa jël Cheikh Tidiane moom moo woo yéen ñi may oo di ma di ma bëggloo leneen man Cheikh Tidiane rek laa bëgg ndax fihi saadatu wal wilaayatu wa tuqaa bi damaani taahal Mustafa al Adnaani Cheikh Tidiane ci moom ci la texe nekk ci la wilaaya nekk boo bëggee am wilaaya Cheikh Tidiane ngay ànd boo bëggee texe Cheikh Tidiane ngay nekk boo bëggee ragal yàlla ci Cheikh Tidiane ngay jëm ndax loolu bi damaani taahal Mustafa al Adnaani fihi saadatu wal wilayatu wa tuqaa bi damaani taahal mustafa al adnaani maam xalifa moo wax loolu in rumta ridwan al ilahi wa qurbahu xuz wirda cheikhana ah, wirda ahmada cheikhana tijaani maam xalifa ne boo bëggee ngërmaande yàlla yàlla gërëm la nga bëgg a jege yàlla mi ne jàppal wirda cheikh tijaani rek xuz wirda ahmada cheikhana tijaani boo jàppee wirda cheikh tijaani rek danga nga texe mel ni dañ koo laaj na ko foo jëlee wirdo wi yow mi ne wirda tijaani anil humami amaani wirda tijaan maa ngi ko jàppee ci sama sang bi sama eh, sama lépp muy ma alxaaji abdoulaye maa ngi koy tagg bahru shariati walhaqiqati wannada mutil hidayati muqizu lwasnaani wa tabibu ma ilqulubi maa aljusu xulasati alkubaraayi wal ayan ma ki ma jox tariqa tijaan mooy bahru shariati géejëg sharia la muy maam alhaaji abdoulaye moo ko jox wal haqiqati wan da waaye ti mooy ki nga xam ne mooy joxe ñu maam xalifa moo wax loolu nga xam ne loolu dëgg-dëgg te ko ki ko jàngal mooy kan ki ko jàngal mooy maam alhaaji abdoulaye te maam xalifa ku liir ay diwaanam xam ko da xam ne dëgg-dëgg borom xam-xam euh, euh, euh, waykat yi def nañ lu bay soxaraaw def nañ lu bëri ci way waaye moom def na loo xam ne sax soxaraaw yi defuñ ko ci way muy maam xalifa radiallahu anhu te ko ki ko mooy maam alhaaji abdullahi radiallahu taala anhu kon li bàyyi wax ne bi bi gazwin wa taalimin jàngale na moo jàngal ñooñu bàyyi ne man kal xalifati alladi taalluma minhu wa minhu qad hawa taqadduma waaye tamit wa muhammadu alladi qad faaqa fi lulumi kulle jihdi ak ku mel ni sama doomi baay muhammad nga xam ne qad faaqa fi lulumi kulle jihdi ku mel sama doomi baay muy ooye Muhammad nga xam ne kawe na bépp sang eh, zeynal majalisi eh, fatal fityaani bal innahu mubarrizul aqraani muy alxaaji Muhammad Zeynabu mi nga xam ne maam alxaaji Abdoulaye moo ko moo ko jàngal moo raawu ñëpp ci xam-xam Cheikh Ibrahima Niass fu mu ko tuddee rek daf koy wax ne rawoon ñëpp ci xam-xam maam alxaaji Mouhamed Zeynab moom moom itam bëggoon Cheikhu Tidiane ndax doomi maam alxaaji Abdoulaye li tax Seyda Maaja def li doomi maam alxaaji Abdoulaye yëpp Cheikhu Tidiane lañ bëgg Baye Maam Alxaaji Abdoulaye wax ne leen ne leen yéen ay doomi Cheikhu Tidiane ngeen yéen ay doomi Cheikhu Tidiane ngeen loolu leneen wax benn doomam mosoon naa ñëw ci moom rek mu am li mu ko wax ba ci yàgg maam Maam Alxaaji Abdoulaye ne ko yéen ay doomi Cheikhu Tidiane kon ñoom dañ leen a nampataloon ci mbëggeeli Cheikhu Tidiane comme ni maam Khalifa def léegi na fii saadatu wal wilayatu wa tuqa bi damaani taha al Mustafa al adnaani loolu la wax mu ne man Cheikh Tidiane rek doy na ma radiallahu anhu alhaaji Mouhamad Zeynuddin ci benn xasidaam ma ngay tawasulu ma ngay wax mbëggeelam ci Cheikhu Tidiane naan laqad غلبتني العين عن طيب نومها فتضطرم الأخشى والقلب يخفق فبت أراعي النجم سامر أنقدي أجاوب ربا ربات القلائد أشعق كأن فراشي فيه شوك قتادة أخبت بنا كل الوسائد ترشق وليلي طويل نابق أبيته ترى الدمع فوق القبض مني ترقرق صببت الدماء دماء بعد دم معدرا وكفكفته والدمع سال يمزق وهذا الحب الختم أحمد شيخنا محبته جيش الضلال تفرق محبته حلت بقلبي وحللت bihi kulla shaytaani maridun yuawwiqu tara alqalba nuuran saatian laa tara fihi siwa alxaqi walbutlaani maa zaala yazhaqu alimtu bi anna allaha laa rabba gayruhu wa inni bi gayri alxatmi laa ataallaqu dem ba ci yàgg naan uddimtu fa zaatu cheikhi zaati bi kulliha waza wasfuhu wasfi fa wasfi maanaqu xalaftu bi xaqi lxatmi inni mahabbatun wa amdaahuhu miskul xatbi miskul qalbi muabbaqu loolu xoolal ñooñu yar leen yar laqad xalabatni al aynu an tibi nawmiha sama bañ fi ne mënatut a nalaw mënatut a neex waaw lu tax mënatoo nalaw maam alxaaji mi ne alxaaji Mouhamad mi ne sama sama baljat ngi lakk sama xol baa ngi jëf-jëf lu tax may nalaw fa bittu oraay nañ ma saamiran ma fanaan di di di di di di sàmm biddi wi rek dem ba nga xam ne ka anna firaashi fii shawqu qataadati dama mel ni sama lal bi ay dég ñoo ci nekk waaw ah, ay dég xam nga lal bu amee dég mënoo cee nelaw sama njegenaay yi ma war a njegenaayoo moom itam neexul maa nga wow kongu mënuma cee njegenaayoo kon kooku kon doo mën a nelaw kooku doo mën a nelaw walayli tawilun nabiqun abitu tara damaa fawqal xaddi min ni taraqraqu mi ne sama guddi gaa ngi yàgg mel ni guddeeg naa bi maa ngi fanaan nag sama ronxañ yaa ngi tuuru sama kaw lex yi ronxañ yi tuuru na mi ne sababtu dimaan baada mu ne nag mi ngi sotti rek deret gannaaw deret dem naa ba jooyi jeex deret fi mu ne mooy génn wa këf-këftuhu wa damu saala yu maziku mu mujj nag fekk ko sama ronkañ yi di tuuru alhaaji muhammad leen mbëggeel googu mbëggeeli lan la xaalis laam jigéen laam lan la mi ne wa hada alhubbi alxatmi ahmada cheikhina loolu nag mbëggeel ak cheikh tidiane radiallahu anhu mahabatuhu jaysu talaali tufarriqu mi ne bëgg cheikh tidiane radiallahu anhu dafay tàqale mboolem lël boo xam ne lëlëb réer la boo bëggee Cheikh Tidiane da ngay dañ ci réer boo bëggee Cheikh Tidiane mahabbatu xallat bi qalbi wa xallalat bihi kulla cheytaani maridin yuawiqu mawal xaaji dafa doxewi torop waaw moom moom baytee bi moom dafa jëfee fii daal xaaji Mouhamed Zeyna moom dafay wax wax yoo xam ne alukat yi wax yooyu lay wax waaw waaw xasidaam boo xam ne boo koy jàng sax man toog naa semaine ba bu set may jéem a mokkal benn bayt te ba léegi mënuma koo mokkal ngir jëfe mu ne nag taral xal ba nuuran mu ne da nga gis ne mbëggeeli Cheikh Tidiane bu xasee wàcc ci xol bépp seytaane boo xam ne jéemoon na laa tënk Cheikh daan buy buy dëng-dënglu rek yow da ngay mucc ci seytaane boo bëggee Cheikh Tidiane radiyallahu anhu da ngay gis te leer sa bi dafay leer di jolli doo gisati dara lu dul yàlla mi ne alimtu bi anna allaha la rabba gayruhu wa bi xayril xatmi laa ataallaqu maa ngi gëñ ne kudu Cheikh Tidiane du ma ci wéeru mu dem ba ci yàgg naan uddimtu fa zaatu cheikhi zaati bi kulliha dem naa sax ba ñàkkal naa sama lépp waaw ah, jëmmi Cheikh Tidiane tey mooy suma jëmm alhaaji Mouhamed dem ba ne jëmmi Cheikh Tidiane mooy sama jëmm waza wasfuhu meloom tey mooy sama meloom man alxaaji Muhammad ñoo ñëpp maam alxaaji Abdoulaye moo leen yar jàngal leen ñi ay borom xam-xam waaye tamit mu nandal leen mbëggeeli Cheikh Tidiane nandal leen mbëggeeli yonent ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon maam alxaaji Abdoulaye kon euh, euh, euh, maam alxaaji buñ koy waxtaanee ci guddi gi dëgg-dëgg waxtaanee nañ koo xam ne ku jara waxtaanee jàngal ay doomam maa xam ne maam alxaaji Muhammad Zeynu ba muy tontu waaye jooju nga xam ne dafa bindoon ci kii askani Bakary bind leen di leen wax mu tontu na ko ba ci yàgg waaye mi ngi koy wax ne taamal fasahati alkalaami wa xifdana taamal fasa fasahati alkalaami wa xifdana kitaabi ilahi alxalqi min mablad alash min mablad alashri waaw seetantalal sama fasaha wax ak mokkal gi ma mokkal téereb yàlla bi te boobu fukki at rek laa am oh. waaw dem ba ci yàgg mi ne ida xila ayu naasi ajdaru bi sana ashaara ak këffu naasi ali bakari waaw muy tontuwaay jooju nga xam ne waxoon na jëm ci maam alxaaji abdoulaye ak njabootam wax ju tegginiwul mu wax ko loolu wa fihi mm, xisaalun eh, eh, ba mu dem ba ci yàgg naa wasaa'il bina ahlal xadiisi wa وسيرة المختفى مع التفسير والشفع والوتر وسائل بيانا وتصانيف كلها وسائل كذا إن شئت خاصمة الزهر وسائل عروض الشعر والنحو إن تشاء وسائل تآليف التصاريف والشعر laa jël loolu yëpp nga laaj ñun ay borom xam-xam lañ loolu la ko alxaaji Mouhamed Zeynabou doon jàngal te kooku maam alxaaji Abdullahi moo ko yar kon moo jàngal moo jàngal ñoo ñëpp moo jàngal ñooñu ma tuddu waaye moo jàngal Cheikh Omar nga xam ne ku rawoon la ci fiq moo moo moo jàngal moo jàngal Baylaaji Babacar nga xam ne moo doon imam zawiya bi di borom xam-xam bu mag a mag a mag moo jàngal maam Serigne Mbaye moo jàngal maam Mahmoud moo jàngal maam Maas moo jàngal maam Hadi moo jàngal ñu bëree bëri ak ñi nga xam ne ay kàngam lañ ku mel ni Abdul Qadir ku mel ni Muxtaar waaye ku mel ni Seydi Ahmad Buka ku mel ni maam Hassan muy bàyyi Seydi Aline Cissé ku mel ni Omar Faye ca Gambi ku mel ni ah, ah, ah, ñu bëri ñu bëri ñi nga xam ne bàyyi tudd leen bàyyi mi ne ak ku ñëwa Bakari ak ñeneen waaye mu dem ba ci yàgg ne waman ka misli Ibrahima fi sa zaman ana kan moo ci mel ni Cheikh Ibrahima ci ñoom jamonoom Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne xam-xamam dañ ne àddina min xaafin ila xaaf ki ko jàngal mooy alhaaji abdoulahi radiallahu anhu kon maam alhaaji abdoulahi ñi mu jàngal bëri na Cheikh Tidiane ñi ngi lay tatagal ak délégation bi nga ànd kon kooku mooy maam alhaaji abdoulahi radiallahu anhu jàngal ay doomam yar leen bañ baax xamal leen lépp lum leen xamal lépp moo leen ko xamal Baay wax na ne ci ay taggam huwa alladi faaqa almashaaiqa mansiba wa mafaaxiran huwa misluhu maa fi lqura huwa alladi rabba alanaama بعلمه وبسره أعظم به ما أفخر هو الذي شيخ التجاني خرينه بعد الممات وقبله ما أكبر هو الذي نزع البلاد جميعها عن بدعة ومصائب ليست ترى هو الذي ضاع القلوب بضوئه إرسا من الآباء أكبر أكبر لولا باي وقتي مام الحاج عبد الله ne moo kawee si yëpp ci daraja ak ci puukare bàyyi ni ne misluhu ma fil quran ku mel ni maam alhaaj abdoulaye ko gis mukk ci dëkk yi yow miy jàng nag man ngaa wax ne ah quran la dëkk yu ay dëkk yu ndaw dañ dem ci dëkk yu mag rek fekk ko waaye bul misaal na dëkk bu mag waaye xar ya la ko tuddee ci alquran wasalil xariyata te boobu misra la ci jublu woon te misra dëkk bu mag la kon léeg-léeg xariya dana nekk dëkk bu mag bàyyi na wa mafaaxira misluhu wa misluhu ma fi lxura huwa alladi rabbal anaama bi ilmihi mooy ki nga xam ne yar na ay ay mbindeef yi ci xam-xamam mooy ki nga xam ne moo bidaa ndax dégg naa ci maam bas cheikh mouhamad mu cheikh alhaaji mouhamad zeynabu mu ne Euh, euh, bu njëkk Sénégal li fi xewoon bu ñu daan yóbbu guru pôle lañ daan yóbbu waaye loolu maam Alhaaj Abdoulaye moo ko fi génnee indi guru gi moom moo ko fi indi kon képp ku joxe guru rek sante ko maam Alhaaj Abdoulaye dégg naa ci maam Basit mu wax ne waaye wax na ne euh, bu taxutoon ak suma baay kon Saalum kenn mënu tere kenn tere leen a jaamu xeram jaamu xeram waaye Alhaaj Abdoulaye ku respecté woon sunna la ku toppoon shariatu Muhammad yee la sallallahu alayhi wa sallam jàng am xam-xam Euh, euh, euh, lépp luy baax rek mi ngi ci maam alxaaji Abdoulaye moo tax keroog ba mu génnee àddina bàyyi dafa wax ne maa kuntu adri xabla dafnika fi sara anna shumuusa takunu fawqahunna sara waaw bàyyi ne maa kuntu adri xabla dafnika fi sara ma nekk di xam njëkk ñi lay may xam ne anna shumuusa yakunu fawqahunna sara musuma yaakaar ne jant bi bés dana ñëw suuf si féetee ko kaw mosuma koo xam mosuma koo yaakaar boobu ndax maa wala xaajam lay jant la kon li muy jàngale jant lañ suul maa kuntu adri xabla def ni que fi sara anna shumusa takunu takuna fawqahunna sara ah, bëgg ko moom Baye fa Abdullahi cheikhul asri asli wa ruuxi bal muraadi bal amaami bal imaami ma mata matal humaam xayi shawaala fi shamsi sinine sawa wiyaama wa mata alilmu mata alhilmu amri eh, bi mawti cheikhi malja ina alhumami ah, tasallaytu eh, آهما بموت الختم النبوة والولاية في الأنام وتبكيه المساجد والزوايا وتبكيه الفنون بالانصرام بيننا وأبكيه وأبكيه دواما فإن الشيخ خصم في الأزام وإن الشيخ في الدين حظامي وإن القول ما خالت حظامي فلم أك قبل موت شيخي أدري بكاء الميت من مأوى الرجام لولا baay marsiya maam alxaaji abdullahi radiallahu anhu muy ko xam ne dëgg-dëgg dundam kenn mënu koo jeexal ci benn jotaay waaye dañ ciy jël li nga xam ne waxtu wi may nal ko rek ndax maam alxaaji abdullahi la saaxila lahu yal na yàlla yokku leeram di barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit bàyyi mi ngi nettali ne maam alxaaji abdullahi borom xar baax la woon yàlla mayoon na ko karaama yi nga xam ne góor ñi dañ ko daan def moom daf koy def de nettali nañ ne bés toog na ci zaawiyam bi di julli su jóot su jóot bu yàgg bi mu siggee yéreem tooy bi mu sëlmalee ñu laaj ko ne ko alxaaji Abdoulaye sa yére bi mi ngi tooy mi dafa amoon sama taalibi boo xam ne man doon suux ca dexi bàjjul moom laa demoon pour xetti bi te loolu duul lu kii maanaam ñin dañoo dem ba gis sëtam sëtam sëti kooku dañoo dem ba gis ko te mi ngi dund dañoo dem ba toog ak moom gàmbi daaw rek kër Mouhamed Lamine Diagne Mouhamed Lamine Diagne koo xam goroom ki ko jur goroom sëti kooku la moom moo ñu nettali lii ne man suma maam moom la maam alxaaji abdoulaye xettali woon yàlla moo ko def ci moom radiallahu taala kon képp ku jug di màggal loolu di santal yàlla ci loolu loolu yàlla dana la boole ci ñi nga xam ne ñooy liggéeyal yàlla yal na yàlla dëgëral la ci barke Cheikh Ibrahima Niass guddi bii lu màgg màgg nga ne guddeeg Cheikh Tidiane la waaye dinañ ci fàttaliku maam alxaaji abdoulaye moom laa ko tuddee at mu jot rek yow maam alxaaji boo ñëwee waxtaanal ma ci maam alxaaji Abdoulaye bul ma waxtaanal ci kenn waxtaanal ci maam alxaaji Abdoulaye oustaz Aboubacar Ba ak Tidiane bu ñëwee waxtaanal ñu ci Cheikh Tidiane ak ci guddi gi ñu ngi koy ñaanal yàlla moom itam yal na yàlla defal ko toofee indi ko ci jàmm ci jotaay bi ñuy gërëm ñu ngi ànd ak ñëpp Cheikh Moussa Soxna ñu ngi koy gërëm ku baax borom kóllëre la jotaay bi ñun ak moom la mosul koo tardé tey xat na lool ajjuma la waaye bi ma ko ko rek ma ne ko suñ jotaay bi ñëw na mi ne ma damay dem mu taal otoom ànd ak suñu mag macha allah suñ nijaay muy cheikh Pape Samb bi tey dawalal ko ñu ànd ak cheikh Maas borom baatin mu nekk ku baax ku am kóllëre koo xam ne lépp lu tàmbali ci mbaax rek du ko bàyyi lépp lum tàmbali ci mbaax bu ko bàyyi nee na ñëw ci jotaay bi bu ma waxee ba pare rek mu départaat delluwaat Kaolack yàlla na yàlla yóbbale ci jàmm kontaan nañ mbokk mu baax nga xarit bu baax nga àndandoor bu baax nga waaye alhamdulilah ñi ne la yow yaa fi teewal Cheikh Aaxibu tey yaa fi teewal Cheikh Mouhamadou Laadou man xam naa ne buñ la oowoone Cheikh bu ba Hind da nga dem da nga dem ngir teewal ko Cheikh Aaxibu ndax xam naa noo ko bëggee yal na yàlla dëgëral la ci barke Baay barke Alxuraan ñi gërëm Cheikh Mouhamad Cheikh Mor Seck ñu koy gërëm maman Amady ñu ngi wax ne mooy suñu njaatige ci bis bi waa heure buñ ñëwee diñ ko tàmbalee yow ba léegi ci këram la ñuy dal moo ñuy defar reer ak mboolem gan yi fay wàcc yàlla na yàlla yokku yàlla yokku maqaamam ci zahira ci baat baatin lépp lu mu bëgg di ko wut yàlla na ko yàlla defal ci barke Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu xarit bu baax la mbokk mu baax la taalibe baay bu baax la yàlla yàlla déggalal ko ak soppe ñu ànd ak suñ euh, suñu xarit suñ soppe di mu xat mi bàyyi Cheikh Abdou Ndaw di ku baax di ku bëgg bàyyi di koo xam ne ku bëgg maam alxaaji Abdoulaye waaye xam lu bëri ci maam alxaaji Abdoulaye ndax yàlla defoon na foofu la nekkoon ci zaawiya maam alxaaji Abdoulaye ci jamono yàgg ma nekk ndaw di ko fekk kon gu am cër bu law la ci maam alxaaji abdoulaye cër bu law la ci am ni mu amee cër bu law ci imaam hasan noonu la amee cër bu law ci maam alxaaji abdoulaye yal na yàlla dëgëral la de man li ma dégg mag ñi di nettali oustaz di ko nettali mu ne bàyyi mës ta génn rek loolu jaar na ci maam alxaaji abdoulaye kon loolu nañ ko ci balaa ñoo dem Tayba dem Koosi Cheikh Abdou Ndaw ne nañ jaar ci Maam Alxaaj bu ñu jugee ci Baay nañ jaar ci Maam Alxaaj Abdoulaye ziyaare ko te dafa gis ñun mbokki taalibe yi ñu koy def léeg-léeg ñëw gàmm wala ñëw yeneen programme dem ziyaare Tayba ak Koosi bàyyi fa Maam Alxaaj Abdoulaye te bu ñu jaaree ci Baay dañoo war a jaar ci Maam Alxaaj Abdoulaye jaar soog a dem Koosi soog dem Tayba loolu la Cheikh Abdou Ndaw dénkaane kon loolu ñun ñëpp yàlla nañ ci sax ci barke Baay barke Alxuraan ñii ngi gërëm ñëpp sama euh, soppe waa Kantaay jiital Mouhamadou Moustapha ñu ngi gërëm ñu ngi yàlla ak mboolem ñu ngi ànd ak Cheikh Abdoulaye Dia Cheikh Mouhamed Diouf ak macha allah ak Cheikh Aboubacar Thioub ubbil sëriñ bi balaa moo commencé ndax ak suñu soxna Seyda Oumou Khayri ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi yàlla ak internet képp ku fi ne ana yàlla fay saa kon ñu tatagal sëriñ bi Chérif mi ngi ñëw ak almuxaddamul baraka al alimul allama Cheikh Aboubacar ak Tidiane ànd ak sëti Cheikh Ahmad macha allah di borom